ñu ngi leen nuyu si turu daal yi turu mu soxna muslimatu Mbacke bintu xaadim rasul jiit gi sëriñ Mor moo nekk si bopp ak ay ak ay soxnaam ak ay doomam kenn si doom moom lañ dalal tey si plateau bi ñu koy laaj lu jëm si wàllu daal ji soxna Fatou asalaamaaleykum ay nuyu waaleykum salaam wa ñu ngi lay nuyu soxna may soxna li ah, nuyu waa plateau bi di nuyu suñu directeur sëñ Mor Talla di nuyu tamit waa daara ji ah, tey nag moom ñu ñëwoon rek pour wax ci tuuti rek ci daara ji waxoon pour wax ci wàllum daara ji daal damay tëdd noonu ah, daara ji nag mu ngi tudd soxna Muslimatu Mbàkke ñu am fi ay góor ak ay jigéen. suñu première question mooy. daara ji moom nan la tëddee wàllu gone yi jël ban âge la ñuy commencé ak ñoom ak. Ah, wàllum gone yi moom ñu ngi jël ci 7 ans ba 12 ans loolu la ñuy jël ñuy jël tamit ay quatre ans ay 5 ans maanaam daal quatre ans la commencé ba 12 ans daal xale yi am na ay góor am na ay jigéen nag waaye xale yi ñu ngi fi ñëw pour boo fi ñëwee tamit di nga fi def trois ans ñetti at mokkal alxuraan ci lu gaaw rek bu xel ndax benn xel moom naqariwul rek léegi nag suñu question dafa mel na daara ji fii nii jigéen ñi lañ fi gën a baaxoo xamee internat jeune fii mu mel na góor ñi moom ñu si gën a ëpp fan lañ nekk. waaw fii nag moom jigéen ñi ñoo ko moom pour jigéen ñoo tax bañ nekk ba dañ na soxna Muslimatu Mbàkke dañ ko tuddee góor ñi moom ngi nekk ci Fadia ñi ngi nekk Cité Fadia ñu seen uh, daara tudd Cheikh Choré Mbàkke ñoom ñi ngi nekk Cité Fadia foofu lañ nekkee ci uh, lycée bi léegi jigéen ñi ñoo bëgg laaj seen nekkin ak seen wàllu dundin ndax xale ma xam nga fu nekk day soxla nourriture ak dundam ak xale jànkoonte des fois feebar xam nga doomu jàmbul yor doom sa doomu bopp rek dafa jafe rawatina koo xam ne dañ la ko andil teg so teg ko sa ay loxo des fois mu jànkuwante ay feebar yu ndaw wala yu mel noonu nan ngeen dundee ak xale yi seen wàllu dund seen wàllu lekk seen wàllu naan ndax xale moom fu mu nekk day soxla jàng mi si la bokk mais foo tuuti tamit dina ubbi xelum xale yan temps la xale yi di pause ak yan yan heure la ñuy jàng daal. waaw ñu ngi lay jaajëfal ci question bi ndax laaj nga laaj bu am solo ndax xale surtout nag nga yor ay jigéen xam nga jigéen moom nekkinam rek daa xaw a metti lekk baak naan baak kii ba rek day metti noonu waaye xale yi nag moom macha allah ñoom moom bëriwuñ problème moom ku ci ñëw rek boo kiiwee rek bu bu miinee rek day daal di commencé tegu ci yoon bi léegi ñoom jigéen ñi moom amul problème bu ñëwee rek dañ leen di indi seen i bagage effet de toilette daañu ñëw dëkk si amul yére amul ndax daara ji ay uniforme la ñuy sol bu ñëwee ñu fekk fi seen i yaa sayda ñu dalal leen moom ñu dalal leen ci daara ji yób bu ñëwee ñu yóbbu leen ci kaw. macha allah sama Fatou ñu ñëw ak yow daara ji tamit biñ ne sëñ Mortala Ndiaye tamit am na ku nekk si wet gi di soxnaam soxna maam Bousso di jàmbaar lool sa xale yi ñu laaj la moom tamit taxawaayam sa xale yi nga leeral ñu waaw soxna maam waaw buñu nee suñu Mor Talla Ndiaye rek am na ñu nekk ca wet ga muy soxna maam Bousso ak soxna Maguette ñuy jigéenu daara ji ñooy ndeyu daara yi ñooy yaayu daara ji di yaayu xale yi soxna maam Bousso moom moo féetewoo wàllum jigéen ñi mooy mooy yor xale jigéen ñi ma ko ciy jàppale ñuy toppatoo xale jigéen ñi di leen lijjanti bu ñu wàccee ñu nekk ci ñoom bu ñu bu ñu wàccee ñu nekk ci ñoom di leen lijjanti seen i lekk ak seen i naan ak seen i sangook yooyu noonu bu heure jàngi jotee ñu bàyyi leen ak seen i yasayda bu ñu posaatee tamit ñu def loolu. bu dee soxna màgget moom moo féetewoo wàllum góoñ moo leen yor mooy seen yaay moo leen lijjanti di leen defal yooyu. moo nekk faja waaw moom moo nekk faja macha allah leer yi am na solo léegi heure yi jàng yi nag yan heure la ñuy jàng. xam nga jàng moom heure jàng yi moom dëgg moom ndax jàngum fajar dafa baax ndax yonent bi moo ko wax moo ne booy jàngum fajar sa xel di day tijjeeku day gaaw a tijjeeku léegi ñoom dañuy yeewu 5 heures du matin la ñuy fajar jàng seen bind yi ñu leen jox bind yu bees yi jox leen ay bind ñu jàng ko ci fajar gi tari ko ba 7 bu 7 heures ñu ñu wàcc daal di def pause dem tëddiwaat nelaw suñ demee tëddi nelaw ba 8 ñu jug ñu yeewu ñu yee leen. ñu préparé wu sangu daal di leen di jox ñu ndékki bu ñu ndékkee ba pare ba 9h ñu duggaat ci xalqa yi bu duggaatee ci xalqa yi jàngaa nekk fa di jàng ba une ñu defaat pause ndax xam nga jàng moom daa laaju pause il faut que xale yi di noppalu di noppaliku di di dallu bu ñu posé ñu jox leen ñu añ heure añ bu ñu añu ba pare ñu julli bu ñu jullee ba pare ba trois heures ñu continué waat nekkaat ci xalqa bu ñu nekkaatee ci xalqa ya ba 19 heures ba 17h30 ba 17h30 ñu defaat pause noppali ko waat jël seen i njogonaal ndax xale moom mënul nekk rek añ ak reer rek nga nekk ci rek loolu rek lu kii il faut que ñuy toog di di def di fowantu di ñamantu yooyu noonu ñu jox leen lekkum ngoon bu ko defee bu ko. macha allah. ñu jox leen lekkum ngoon yi bu ko. bu ñu leen joxee rek ngoon ba pare ba 19h. léegi nag maa ngi sant soxna Fatou Touré mi ñu dalaloon si plateau bi sant boroom daara ji Serigne Mor Talla Ndiaye gis ngeen car golf sud cité douane derrière cité Aline Sow ñoo ngi ñaan yàlla lépp lu fi ku fi andi doomam ak bépp yéene bu si am yàlla dafa ñu lu kawe suñ jort gone yi fi nekk alxuraan ji ñuy jàng mu mokk te wér wàcc alxuraan yàlla nañu yàlla defal ndam defal ñu dégg ak suñu plateau deuxième ñoo ngi dalal soxna Mame Diarratou Seye moom nag mi ngi nekk kenn si Seyda daara ji di fi jàngale moom mi ngi wattu alxuraan daara poroxaan soxna jaara xam nga ne foofu moom ay jàmbaar ak ñoo fay génne moom nag bokk na si ñuy saytu xale ñu dikk ak moom si ay laaj mu xamal ñu dara si daara ji ak yenn si xale yi seen wàllum jàng yu mel noonu soxna jaara ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw soxna si ñu ngi delloo nuyoo bi ak ziar bi. bu baax macha allah. waaw ñu njëkk suñuy question yu njëkk ñu ngi laaj daara ji moom yan riwaaya lañuy jàng xale yi. waaw daara ji nag xale yi ñu ngi jàng euh, riwaayatu warsh warsh la xale yi di jàng waaw warsh la xale yi di jàng. waaw warsh an naafi daal defe naa moom la ñuy nag gone yi moom jàng mi jigéen ñi nu mu demee noonu ak bi xam nga gone moom jàngal ko moom jafe na jafewul. ndax des fois nga jàngal gone goo xam ne mooy loolu des fois foo day nekk seen xel ñii jàng tamit dina nekk seen xel mooy loolu ku ne daal gone gi ne am na no noo xamee ku ne daal yaay xam gone gi nga yor ban côté nga koy jaar pour jàngal ko pour li nga koy jàngal mu appliquer ko loolu tamit ñu ngi si laaj. waa soxna si ah, question bi am na solo macha allah soxna Maymuna question bi am na solo. waaw xale yi nag comme ni nga ko waxee rek des fois da ngay yor ay xale yoo xam ne macha allah dañuy neex a jàngal doo ci sonn mais des fois nga yor xale yoo xamante ne moom da nga ci sonn lool pour nga dogg nga bëgg waaw su fekkee xale yi nga xamante ne dañoo jàmbaare macha allah ñetti parti lañ sa xale yi ñetti parti nga xam dañoo jàmbaar lool ak ñi nga xam ne dañoo dañoo digg doomu seen maanaam soo leen jàngalee ñu dem des fois ñu kii mais ne am yoo xam ne moom dañoo xaw a doy waar ba nga xamante ne moom mën nga cee sonn lool sax te te danañ bëgg daal maanaam doo ko ci am waaw su fekkee xale yi nga xamante ne nii nag moom macha allah dañoo neexum xel moom seenum njàngale dinañ jàng jàngal leen du jafe mais su fekkee xale yi nga xamante si ni moom dañoo digg doom dañ ciy def effort pour ñu jàng mais nag am na ci ay xale yoo xamante si ni moom pour nga jàngal leen problème lay doon ñooñu moom da ngay doxanteeg moom nang rek di ci ci di ci demee ak li nga xam ne moom la yàlla jox muy mën-mën gi di ko ci demee rek ba keroog yàlla di def li nga xam ne si ni mooy li war ci ñoom. léegi suñu deuxième question mooy xale yi ndax buñ mokkale alxuraan ak ñaata at lañ fiy def. ndax xale yi des fois da nga gis xale boo xam ne day ne xel mën naa jàng euh, ñetti at waa da gis koo xam mën naa jàng ñaar at sax ak ak lu teg daal di mokal mais nag da gis xale yoo xam ne moom mën nañ fi am ay juróom-benn at ay ñaar at duñu mokal waaw loolu moo xale yi moom bu ñu mokkalee waaw am na ñoo xam moom nañ beeq mais am na ñoo xam seen parents du leen may pour ñu ne ci daara ji di beeq loolu léegi nag parents yi moom ñoo ngi leen di ñaan ndax alxuraan nga mokkal ko rek li koy tey bokk na si nga beqi ko wala nga bind kaamil bi. troisième question mooy xale yi ndax yan heure la ñuy jàng ak yi demee noonu. waaw xale yi moom suñu su fekkee fajar bi cinq la ñuy yow ñu dugg laa jàng jàng fajar ba pare bu ñu jàngee fajar ñu jógee six heures sept heures la ñu dem tëdd dañuy dañuy dañuy arrêté waat ñu julli après ñu dem tëdd léegi suñ tëddee ba euh, huit heures. ci la ñu jóg waajal daal di ndekki su ndekkee pare ci la ñu doog a duggaat classe léegi nag bu ñu ndekkee pare 9h la ñu duggaat léegi suñu jógee classe 9h euh, dañuy continuer di jàng ba 1h bu 1h la ñu wàcc bu fekkee du dimanche parce que dimanche duñu jàngoon mais dimanche moom 1h30 la ñu wàcc mais bu du dimanche 1h la ñu wàcc suñu wàcc 1h xale yi dañuy dem dallu tëdd nelaw après ñu añ préparé waat 3h pire ñu dugg classe 3h bu ñu duggee classe tamit dañuy continuer waat jàngale bi ba julli jot ñu dem julli suñu julli waate ba 17h30 17h30 ca la xale yi di di di di di wàcc après ñu dem dem sangu préparé pour marax suñu julee timis ba pare après dañu duggaal marax suñu jugee ba gee jot ñu arrêté jàng bi xale yi julli gee ñu wàcc ba fajar léegi suñu troisième suñu quatrième question mooy daara ji moom mel ne gone gu fi mokkal am na institut franco arabe boo xam ne fi la ñuy fi la ñuy jàng wàllum nasaraan français bi ndax alxuraan moom dimbali si àdduna dina dimbali si àllaaxira mais tamit des fois tamit nasaraan bi si baax ndax dina xam nga dina gën a xam nga nooy doxalee daal sa wàllu dund sa àdduna mu mel ne foofu institut am na fi. waaw waaw xale yi buñ mokkalee dañuy dem ci franco bi jàng ak yi français bi yëpp lépp am na fi. léegi nag Franco moom fan la nekk si daara ji nekkee Fadia waaw Fadia nekk mm, comme que fii moom si redwaan ja fii la daara jigéen ñu nekk mais daara góor ji Franco beeg yëpp ñu ngi nekk Fadia macha allah soxna Jaara soxna Fature leeral yi ñu doon def si daara ji leer na nañ macha allah question bu ne réponse bi ñëw na ba mu mat ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ñu doon seetaan te di ñaan yàlla lépp lu ñu fi euh, def si lu baax rek yàlla fulal ñu ko si ay tuyaaba lépp lu ñu si juum yàlla jéggal ñu ko hmm, maa ngi jaajëfal ñëpp jaajëfal gi daal ñu ngi siy jiital suñ DG Serigne Mor Talla Ndiaye ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk si bopp bi Zeyda jàngalekat yi jigéen ñi ak góor ñi gone yi jàng tamit ñoom ñëpp si biir ak soxna boroom daal ji soxna Bousso Gaye ak toggkat yi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal daal ak ñi nga xam ne parents yi nga xam ne ñoo am xel mu dal andi fi seen ay doom ndax ñoom jur doom ak ni mu mel xam ne doom si xol la sax nga jël ko yóbbu ko si loxo yoo xam ne mu dal rek moo tax daal nga bàyyi leen fi ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. seen troisième partie daal ak suñu ñetteel gan Serigne Moustapha Mbaye ñu ngi koy dalal si plateau bi moom tamit biñ jàppee bisu conférence bi ba léegi mi ngi ànd ak ñun si liggéey bi mooy jàngal xale yi woy yi ñu def ak yooyu noonu ñu ñëw moom si ay question Serigne Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل القرآن waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna su sellis ñu ngi lay jaar bu baax alhamdulilah macha allah nuyu bi am na solo mu mel ne nag maa xaw a gañantu léegi ñu ngi dikk ak yow si wàllum woy bi nga doon jàngal xale yeeg ak yéen seen programme nan la tëddee ndax si conférence yi rek la yem wala yu mel noonu euh, genre de franco yi yu mel tamit ba xam seen programme àgg na foofu. Ah, macha allah soxna si ñu ngi rafetlu kàddu gi bu baax a baax alhamdulilah. waa troupe leeral bu ko waxee benn benn benn groupe la boo xamante ni dañuy yëngu ci organisation anarchite ak animation dañuy yëngu ci anime ay réception lu mel ni ay fin d'année conférence. lépp dañ ci dañ dañ ko animé macha allah nga xamante ni benn groupe lañ boo xamante ni mi ngi nekk Touba am nañ it boo xamante ni mi ngi nekk Dakar waaw. léegi groupe boobu nan lañ tudd. groupe bi mi ngi tudd Troupe Leeral Troupe Leeral Troupe Leeral la tudd macha allah. Mhm. léegi programme bi moom nan la demee comme gone yi nekk si daara ji ak ñi nekk si jardin yi ak ñi nekk si franco yi ak comme seen nga def wax noonu mariage ba xam ñoom ñëpp. programme bi benn la daal. Eh, programme bi du benn ndax troupe leeral dafa am benn groupe boo xamante ni spécial ñoo ci ñoo ci ñoo ci en manko di liggéey am na ay góor am na ay jigéen léegi nag ñenn ci ñenn ci ñoom ñoom lañ jël defal leen ay formation quant bu amee réception boo xam ne war nañ ko def ñun groupe bi ñu tànn leen déplacé leen ñu dem animé réception bi. bu fekkente ne conférence nag xale yi nga xamante ni ñoo war dem conférence ñoom la ñu dem fekk leen defal leen répétition yi macha léegi nag yéen moom seen troupe dëgg-dëgg fan la fan la nekk daal. waaw bu dee man troupe bi ma jiite moom Touba la nekk Touba la nekk troupe bi nga xamante ni moom laa jiite. Touba si la nekk Touba Darou Khoudoss waaw su ñu see Touba Darou Khoudoss la nekk waaw macha allah. léegi yi am na solo ñoom moom ku bëgg sa conférence baax wala sa mariage wala sax ak ni ñu war a lépp duñ ko bàyyi yemuñu si woy bi dañuy yar gone en même temps léegi nag seen numéro tamit dina si baax nga jàllale ko si. ñi lay seetaan bu ñu ah, macha allah ku ñu soxla mën nga ñëwoo ci 77 686 12 96 77 686 12 96 wala nga woo ci ñëw ci 76 603 12 65 76 603 12 65 macha allah. macha allah suñu mbokk sëñ Xaadim Mbay ñu ngi lay jaajëfal leeral yi am na solo ginnaaw loolu bi ñu sant ñoom ñëpp ñu ngi ñi ñu àndaloon si plateau bi waa Tawfekh Production ñoo jàpp si caméraman